ñuy fàttali suñu bopp di leen fàttali waxtu nekk ñu gën a góorgóorlu ci suñu digganteeg suñu borom gën a jege jegele suñu borom gën a ragal suñu borom ndax li muy jur ci doomu aadama mooy tax ñu mën a nekk ak moom li muy jur ci doomu aadama mooy tax dundam amal ko njëriñ fii amal ko njëriñ fële yàlla nañu yàlla defal tawfiix ñu bokk ci ñooñu nga xam ne dañuy góorgóorlu ci loolu te suñu borom dëgër leen ci mbokk jullit yi lislaam ay santaane yu bari la ak tere yu bari ay muy ay pàcc-pàcc yu wuute yoo xam ne benn lu ci nekk am na lu ci suñu borom digle leen lu ci nekk xëy na am na lu ci suñu borom di moytu loo waaye xaaj-xaaj yooyu ak pàcc-pàcc yooyu li bari bari lépp dafay tënku ci benn mbir dafay dañuy àndandoo ngir jëmale doomu bi ci mu jugee ci asfala saafilin muy gën ñu gën a suufe jëm ca ñu gën a baax te gën a kawe ci mbindaafanu yàlla yi loolu nag ci li ñu amee mooy jaamu yàlla yi ak jëflante yi bu mu ci man di doon la mu war a jug ci doomu aadama bi mooy defar ay jikkoom defar aw nekkinam defar melokaanam kenn ku nekk xam nga ni yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ni jullit ak moroom ji nit ak moroom ji bu ñuy jëflante dañu góorgóorlu ba benn bu ci kenn lor moroom ji yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ni képp koo xam ni gëm nga yàlla gëm nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga ni am na bis buy ñëw suba te des na lijjanti la nga doon la nga daan jëf ci àdduna nee na képp koo xam ne loolu mu ngi ci yow na nga góorgóorlu ba wax lu baax bu jeexee nga noppi wax na ni it sallallahu alayhi wa sallam ni képp koo xam nekk nga ab jullit gëm yàlla gëm ni am na bis buy ñëw sa kanam na góor góorgóorlu ba bu lor sa dëkkandoo ak nu man di mel kon yii ak njàngale yu baree bari yu mel ni yu baree bari la te lii rek dëgg-dëgg mooy lislaam mooy wuute lislaam ak leneen lu man di doon yi nga xam ne ay jaamu yàlla la sax nga xam ni dañ lay wax ne defal lii waxtu sàngam waxee su la lu tax wax nañ ni li gën yi nga xam ni moom lañ ci gën a xam muy julli woor ak yu mel noonu natt asaka ak yooyu yëpp benn bu ci nekk bu ñu ko seetee dëgg-dëgg dañuy fekk ni nit day nekk digg bi waaye soppi nit defar ay jikkoom day nekk ci digg ba moo tax suñ borom wax ni day leen julli ndax julli kat dafay dindi ci nit ay ñaawteef dafay tax ba nit ki lu bon lu nit di xool ci nit ba di ko gis te di ko ñaawlu day fexe ba dootu ca du ca nekk noonu it lañu soññee ci woor waaye wax ni bu ngeen ko defee li muy jur ci yéen mooy ragal yàlla moytu lépp loo xam ne day mer day merloo suñ borom waaye góorgóorlu ba lépp loo xam ne suñu borom dafa la ko digal nga nekk ca loolu boo ko toppee aj gi nga xam moom lañ tollool mu ngi moom it boo ko toppee noonu rek la mel nee na aj moom day tere nit ki euh, nee na waxtu woowu nga xam ne yéen a ngi aj tere naa leen ak caay-caay tere naa leen mon tere naa leen nangam tere naa leen nangam kon tere tere jiifoon na aj waaye da koy gis ni bu ñëwee ñëwaatee ba ci waxtu woowu daf koy gën a dëgëral gën koo saxal loolu lépp li muy tekki mooy lislaam ay jikko la lislaam li muy def ci nit bu ko defee ci moom ba nopp da koy soppi jële ko ci ñi yées yóbbu ko ci ñi gën a kawe kon jullit bi góor-góorlu di julli ji na xam ni dafa am lu mu war mel dafa am lu mu war a jeexital ci jëmmam ci melokaanam ci jëfiinam ak ci jëflanteem ak doomu aadama su fekkee ni nit kii bu ñu ne allahu akbar mu bàyyi lam doon def dafa mel ni dégg na kàddu jàll dañu wax ne yàlla moo mag gën a màgg lu ma di doon mu bàyyi lam doon def dem jàpp julli kon kooku tàmbali xam njàngaleem suñu borom mu nga noonu waaye bu fekkee ni bu jàppoo ba nopp julli ba nopp kumu mu mën a nax nax ko kumu mu mën a war war la kumu mu mën a njuuj njaaj njuuj njaaj la képp ku mu séqal attan na jaar sa kaw kon koku war naa góorgóorlu mu xoolaat bu baax a baax julli gi ndax julli gi kat dafa war am lu mu lu mu lu mu jariñ ci xolam dafa war am lu mu effacé ci xolam te yooyu yu may wax dafa bokk ci war a effacé ci xolam léeg-léeg gis nit koo xam ni bu ñu ne allahu akbar moo dàq dem ci jàkk ja bu ñu allahu akbar moom jumaa je kenn du ko kenn du ko fa jiitu bu ñu noppee moo fay mujj waaye bu demee ci kër ga lañ ko fay laaj mu am ko ci poosam du ko du ko fa séenéwu ko joxe xëy na ku ku wax ak moom mu jàll la fa séenéwu te dund ak njabootam wanul nit ñi ni doomu aadama la moom daa bëgg weesu doomu aadama xam nga loolu lépp bokk wute naa njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa loolu muy def kon julli gi war na ko war na ci góorgóorlu war bu baax a baax te xamni jeexital bu mu a def ci mom des na bu baax baax nit ngi julli kurus gi mom du tàggoog loxom waye bu ngeen jëflantee rek bo moy tuul mu jaar sa kaw leg leg nga gis nit mu tek kol ci kawam kaalawu ba rafet sol mbub mu wex sol sikkim bo, yor sikim bo xam ne foo gisee dang koy xemem jappat jakar ni nitu lislaam la bu ngeen ci julli mo mu gën la ci yaak gën la koo ñime bu ngeen di àndandoo dem ci sëriñ ba mën naa am sax moo lay dàq joxe addi waaye bu ngeen jëflantee rek mu jaar ci sa kaw kooku nag nga xam ni lislaam gi dëgg-dëgg joxe addi ci la bokk julli ci la bokk woor ci la bokk waaye yor ay jikko yu baax rek rek rek la loolu lépp di jariñ bu ko mën mënta jariñ ci yow kon li ngay def na nga seetal pas-pas bu baax a baax mbokk julit yi aljuma ji ñu wess mbokkum julit ni mo fekk fi ma di ab julit ni ma man kat dama jaaxle ci rewum Sénégal ndax ñom man nañu julli jakkay gi nañ fess kuma wo sama kër di ab euh, mbokk mo xamni Egypt. mu ngi jóge ci euh, Égypte ni ma suma suma suma su ma woowee nit am lu lu lu lu ci sama kër ab frigo wala lu lam wala lu mën di doon nee na bu dee lu war a fayee ñaari téeméer junni la may fay day dem ba weesu rek ma doog a xam ne junni la ma ñaari téeméer na su ma duggee ci marché bi li ñu war a jaree ñaari téeméer junni lañ junni lañ ma koy jaayee su ma jëfalanteeg nit sama doom bu wàccee ñu bund fa taal ko wan ko ni ko dëkkoo ci réew mi ah mu ne ma loolu nag yaakaar naa du jikkoy jullit du jikkoy li nga xam ne moom lañuy ñuy xaar ci ab ci jullit ak morom loolu nag euh, xëy na li ma ko li ma ko ci tegal rek mooy jéggalu ci turu ñëpp ndax moom buy dem gan la kenn mënu koo tere nettali buy dem dina am lu mu yóbbaale te la muy yóbbaale dina wax ni sénégalais yi ñoo noonu fekk ni sax am na ñu bare bare ñu melut noonu waaye dama ma ci dolli mooy wax ko ni ko man mii di ñoom man mii sama bopp sax dañ may def loolu da ngay ñëw toog nit ñi di la aayoo di sëñ bi euh, dama dama bëgg a jënd nàngam muy jar ñaari jënd mu ne ah sëñ bi yow lii ndegam yow kat ci kër gi nga bokk moom duñ la ko jaay loolu moom bu soobee yàlla defal ñetti junni rek incha allah du kii mu wóor ko ne yow doo nit ku mën a waxaale yenn waxaale fekk ni boobu moom bu beneen moroomam ñëwoon lan nga koy jaayee mën naa bañ a egg ñaari junni mu jaar ci sa kaw nax la jàpp ni nax na la fekk naxu la boppam la nax ndax wax naa leen fii bërki démb ni leen li ëpp solo ci li ñuy wut mooy barke ndax barke mooy fekk lu néew mu bari ko nit ñi nag ñu ci bari ci ñoom wutatu ñu barke li ñuy wut mooy lu ni gàññi wax na leen fii ni leen yent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mën ngaa wut mu ni gàññi bu wut da ngay mel ni kuy lekk te doo suur mukk loolu nag dara jëru ko ci àdduna kon loolu moo wax naqari na ma lool ndax fii la ko waxe waaye ñi génn ci réew mi di dem ci yeneen yeneen réew jurit yi lu mel noonu nga koy fekk xam naa ay nit ñoo xam ne dañoo dem ci réewi naar yoo xam ne bañ fay dem ñoom jàng ñu mbirum diine lañ doon jàng mooy xam-xamu adduna kiy jàng médecine kiy jàng nangam kiy jàng nangam waaye nag ci ay naar lañ jëm am na ci ñoo xam ne sax la tax ñu dem foofa mooy jàpp ne buñ fa demee dinañ gën a mën a dund seen seen diine mooy te luy tubaab bi dem ci réew yooyu waye amna ci ñoo xam bo tok ak ñoom bu ngeen waxtane mom bu jaare ci ñooñu la muy ci seeni der lu ñaaw ñaaw la te ak ay dong la ko sekkal fofu kon dafa melni dañu wara fatali a ne l'islam du ñaar du ñet du ñeen ben jang na rek rek rek rek la mané sa ko teunk ci wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni dañu maa yónni fi ci kaw suuf ngir ma motali jikko yu rafet kon jikko yu rafet yi fi ci rew mi jikko yu rafet bi bare yi fi jom kersa muñ sutura yooyu ñep fi la ko l'islam fek ndax amoon nay la ta l'islam di ñew kon yu bokku na ci nga xam wu res ko bàyyi ñun ya ay julit deug wax deug bàyyi chaahan bàyyi wor bàyyi yooyu yu yep nak muy tay jikko yu rafet yo xamni fi la nekkon yooyu yu moo tax l'islam ñew deugal ko saxal ko deugal ko ci xolu do aadama innama bu'ithu li utammima makarim al akhlaq kon lolu ñu bayyi xel suñu diggante ak nit ñi si diggante ak sénégalais bi ngay waxal bu dé da nga da nga man ndekk di xaw ci dara ma ñëw nga defal ma lo xamni wuro dara nit la ni témir lañ ci wara fay nga fay yëpp ma ci ñeenti jund la ci des lépp sawara lay doon wu lay lak amul ben njëriñ suma ñëwé ci ci marché bi nga war ma jaay waxtu wi gañ nga jaay ay mbasin amna ci ño xamni ni bi ñi jaay dañ la koy jaayee fukki eh, ñaari junne nangam ni la mooy mbasin bi gën a cher fekk ne jël du boobu mbasin bi gën a woyof la waaye yow xamoo nga xam ne da nga yàkkam bi ngaa solo boo soloo ñaari fan ñett nga xam ne waa ji ndax la façon boobu nag nit ñi di ko wuti alal bari na loolu te yaatu waaye amul benn njëriñ mën naa bari nag mën naa bari nag waaye du am du la amal njëriñ de fii ñu toll gis naa fi koo xam ni mbokkam lay liggéeyal mu jël kenkaay bi boo xam ne wóor na ma lu mu néew néew moom juróomi fukki million mu ngi ci biir kenkaay bi man mosumaa xam mbokk ma moom laa ko mas xam yaakaaroon naa ni sax moo ko moom mu def fa ab diir di liggéey bis ma xëy fekk waa ji ci boppam moom mi doon liggéey foofu ubbi ca wetu place waajooju kenkaay rek du toll ni bosu waaj nga xam ne ba ñu lijjantee dafa mel ni client yi client yi nga xam ne ñoom la daan jaayee loolu capital waay ci la lijjantee moom lu mën a ubbi kenkaay ay bëtam sax rus ji weesu maanaam kersa dañuy wax kersa dañ na ci moom ba amatul benn jafe-jafe ba mën a ubbi ci wetu waay nga xam ni waajaa ngi jàkkaarloo moom client bi waroon dugg fii dugg ci place am amu ci benn jafe loolu nag sore na lool ak jikko jullit sore lool ak jikko lislaam kon nañu rafetalat jikko yi setat ko selalat ko te yalla rek tax li wut lu mu bari bari amul njariñ doylu rek moy li nga xamni bu ko nit ki amé jeexalu dara boo doyluwut lo am lu mu bari bari du la jëndal bo doylu li ngay wut lu mu bari bari du la jëriñ dara kon yalla ñu yalla defal ghina nafs moy doylu li ñu am mu doy li ñu ñàkk ñu xam ne suñu borom mi joxe moo nu ko moo ko téye te lu mu téye moo gën ci ñun bu ñu ko joxoon muy safara ci ñun aqulu qawli hada wa astaghfirullahi wa huwa al-ghafur rahim